ci territoire national dañ la ci mëna jox ba nga mëna jot ci say traitement inshallah allah ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal seen cabinet univers bio dañu dellu si waat ci yeneen feebar inshallah rabbi merci allo alaykum waaw serigne Lamine Bara Fall waaw man la Ibra man la Ibra lay dekk Kambulen 1 waaw ma Covid alam bi kontaan na ci de kontaan na ci bu baakha baakha baax parce que sonon sonon na trop trop trop sama bi du joy jooy mënatumaa dem ci xewi mënutuma dem ci ngenté yi man wax dëgg yàlla daal sëñ bi kontaan bu baax a baax Maurice Allen bi sonal na ma trop trop trop trop sama biir bi da doon jooy ak lépp léegi lépp macha allah sëñ bi maa ngi lay sant nag bu baax a baax di gërëm di ñaan yàlla mu yàggal taxawaay bu baax a baax a baax Maurice Allen bi daal sëñ bi solo na sololoon na ma lool lool lool lool waa ji mënatu maa na dem fenn fen kër gi sax mënuma ko woon a génn wax dëgg yàlla mais saa yi daal sant naa bu baax a baax sama biir bi da daan jooy itam sama biir bi da daan jooy sëñ bi mënuma mënuma na dem fenn wax dëgg yàlla sant na baax de jërëjëf mënuma wax sax. mauvaise haleine kon ci loolu la ñu nar a am yéene pour waxtaan ak yéen ndax pour ñenn ñi dañuy am yenn jafe-jafe ci seen biir maanaam dañuy am ulcère wala estomac wala ay reflux gastrique maanaam dañuy sentir ay xeetu gémmiñ bu ñu wax ak ay nit ñi ñu dëmmooyu di wane ginnaaw di tëfli wala ñuy sentir ñenn ñi dañuy déranger wu dañuy déranger ay nit ba ñu ci bari ci ñoom. dañuy sax takk masque ndax bañ a déranger ay nit surtout weeru koor gi loolu nag wax dëgg yàlla nekk na lu sonal askan bi ñu bëree ci askan bi dañ koy sentir di ko jàmbat dañ fay def traitement bi nga xam ne dafay jëm ci wàllu mauvaise haleine généralement koy raxas si biir bi raxas ko bu baax ba mu set fépp ci seen yaram ci wàllu ulcère wàllu estomac may la ay garab yi ko faj ci put bi ndax am na xam te ne dañu am amygdale wala angine loolu itam ba tey day bokkaale ci gamme de traitement bi ñu lay jox day fajaale amygdale faj angine ak fu mauvaise haleine bi mën a jóge am na ñoo xam te ne nag seen signe bi dafa am problème wala ñu am problème bucco-dentaire wala seen signe yi wala bëñ yi day am ay gàllankoor gam bii ñu leen di jox am na lu ñuy broso am na lu ñuy naan am na itam ay ñaan yi nga xamante ne dafa jëm ba ci wàllu ngelaw seytaane ñenn ñi ci seen signe la nekk ci signe bi bu ñu broso naa leen ndox mu xonq lay génne lu mel ne deret wala ndox mu jaune bi nga xamante ne day dem ba di am xet loolu yëpp dañ leen koy fajaaleel généralement ci kattanu yàlla ak baaxam ak yërmande bi nga xam ni moom macha allah gamme complet la buy faj lépp lu jëm ci wàllu euh, mauvaise haleine comme ni ma ko jee sànq ci wàllu ngelaw ak ngelawu seytaane loolu affaire rab la mën nañ leen ci mayaale ay ñaan dañ leen di jox ay garab may leen ay ñaan yi nga xamante lu ci wàllu rab ak ngelaw seytaane dañ leen koy fajaaleel ci biir traitement bi am na ci ñi nga xam ne itam affaire liggéey la dañ leen liggéey dëddale leen ak nit tàggale la ak doomu aadama yi nga xamante ne ñoo nekkoon autour de vous yaa koy amee fii Dakar Géejawaay arrêt Dubalès kër Serigne Lamine Bara Fall numéro téléphone bii di Dakar 77 169 45 45 wala nga jël 77 646 41 21 am na livraison à domicile gratuite foo mën a nekk fii Dakar incha allah ci kàttanu yàlla ak baaxam a ngi si jàmm bu baax ñu ngi nuyu di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen dama déggoon sa publicité si télé bi si laa jëlee woon sa numéro pour affaire mauvaise haleine man daal daf ma sonal trop wax dëgg yàlla jaaxle naa fu ne dugg naa fa boros ak euh, façon boros bu ne pat bu ne jënd naa ko bain de bouche ak lépp alhamdulilah sant yàlla sonnoon naa de lu ma doon dund ay at mauvaise haleine yi mu sonal ma witt witt witt billaahi dem naa ba mel na ku dof sax su ma seeni ni sax balaa may egsi si wallahi munuma sama yitte yépp laa daggoon wallahi son sonnoon laa def fu ne dem naa fa li ma jënd ci ay bind de bouche pat buñ ne baax na pharmacie ma jënd lu ne laa la wax wallahi ngeer sax lu ne luñ na baax na rek ma baaxal sax di ko def ay bain de bouche ak lu ne waaye mauvaise haleine fi ñu toll nii de alhamdulilah sant yàlla ba balaa may ñëw si yow sax sama jëkkër butéel bu mel ma indil bi ma naan butéel ba muy bëgg a jeex wu mel ne daa gën a yokk wóor na yàlla ma découragé si laa doog xool ma ne amoon naa sa numéro jëloon naa ko xaaral ma xool la waaye dëgg yàlla yàlla jàppale ñu sant yàlla billahi maa ngi waxante ñiñ normal fi ñu toll gëmewuma ko sax nag wallaahi gëmewuma ko ndax dafa nekk lu métti métti ci man moom toog di ko xalaat ko xalaat bu baax sax waaye sant yàlla yàlla na leen yàlla jàppale daal yàlla na leen yàlla fay gën a wéral këriñ kontaan naa nekk leen si jàmm ju bari jërëjëf. salaamaaleykum. mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu ñun la waa Univers Bio tey nag dañ leen a indiloon suñu produit bi ñuy wax mauvaise haleine ndax mauvaise haleine dafa yaatu am na ñoo xamante ne day génne ci seen biir am na ñoo xamante ne day génnee seen put am ñoo xamante ne day génnee seen gémmiñ pour ñi nga xamante ne seen gémmiñ rek la nekk nag bii moom moo koy traité bii nag lii ma tee nii moom moom moo koy faj ci put bi ak ci estoma bi ndax mauvaise haleine dafa yaatu comme ni ma leen ko waxee lii dañ leen koy mayaale ndax day fajaale raba ak ak ngelaw seytaane ñenn ñi ngelaw seytaane moo leen koy ñenn ñi rab lii nag moom dañ leen koy mayaale waa ñun wa waa bi bio ku soxla sunu numéro nag dangay def 77 160 93 93 asalaamaaleykum Serigne Bara Fall man la a Diallo euh, dëkk Guinée Conakry euh, wallahi sa garab ba ma ko jëlee ba léegi maa ngi sant yàlla mauvaise haleine bi Ah, moo tax ba ma gisee si internet bi ma gis sama mbokk bu nekk Sénégal foofu mo ma jox ko sa numéro ba mu ba ma ko yóbbante ba léegi instant yi nii macha allah sant naa la gërëm naa la bu baax a baax a baax a baax parce que munu moom nekk ci nit ñi ah, ah, ay maxi rek laa doon sol aussi tamit sama biir da doon métti yooyu noonu. mais sant naa la daal gërëm naa la maa ngi lay ziare xam naa ni sama mbokk Guinée yi nekk fii nii si Guinée dinaa lay yabal foofu ñëw foofu incha allah rabbi kontaan naa baax a salaamaaleykum.